Birago mu jël ko muy nay nay la. Ah allo allo allo allo Halo, halo, halo. Halo, halo. alo alum am nit xoolal ma Laurent mo ngay war géew ba mo war géew ba la ilaha illallah ali baba samba ko man ay waay xatal bu rouge bi ko jàppee da naa la champion maa la ko wax ndax rek ku la maa la ko champion bu mag la bul fàttali jàmm gën la jógee. maa la ko wax borom waa jàmm gën ñoo ko ngeen indi ko ndeysaan. nee naa la tarkinda la moom Laurent. waaye tarkinda bu mag la sax ndeysaan. waaye hey boy plateau. hey boy plateau. di champion. kenn du moom ci réew mi. waa Fass ka dar. kenn du moom ci la waa Mirina ka dar. kenn moo ko jàngal bëre. waaye ay Laurent. waaye si te ka dar. kenn du moom waajee ka waaye magam Liss Ndiago ko dar maa la ko wax combat baa ngi nii combat amateur yaa ngi nii combat bu mbokk yi doon xaar nee naa la combat bi ah, rajo sociaux yi télé yi foo mën a dugg si àddina rek la si tiktok bi loraa la ñu doon waxtaanee ak Boy Plateau ah, kon bis baa ngi nii waxi mag dem dañ dañ daal li lu waay doon jaay lu waay doon jaay léegi mu lamb lu yàggul dara rek arbitre bi sifflé Laurent Ndiago ak Boy Plateau ñu war a jàkkaarloo war a jixaat waxee war a amateur yi li nga xamante ni moom lañ doon wax pendant tout ce temps arbitre bi ngi wax ak Laurent wax nañu mooy Boy Plateau Boy Plateau pare na Laurent moo tekk gàgg bi si bopp bi Laurent moo ñëwoon ginnaaw moom Laurent ngi noonu yor bindu magam yor feemu magam Boy Franc toog Laurent ñoo ngi am problème bi nga xamante ne mooy problème de position waaye lu mën a am Laurent di nga bëre lu a am Boy Franc toog di nga bëre lamb ji amateur yeeg bi am avertissement ah, Laurent am na avertissement. mooy la ko Laurent am na avertissement ndeysaan. Laurent jox nañ ko avertissement. Laurent jox nañ ko avertissement. lan moo waral loolu. parce que arbitre dana prime rek bu commencé jalgati. Eh, kon Laurent bàyyi jalgati bi. mbër da ngay respecté sa adversaire. waaw waaw ma arbitre sifflé Boy Plateau Malal. jokkaas na léegi. Malal Boy Plateau jokkaas na. maa la ko wax. combat bu a gaaw. waaw waaw. diggante Laurent. ak Boy Plateau. ak Boy Plateau. ay loo xooy looloo. Khadim Moustapha. fii la mburu bi tàngee. waaye Amdine Moustapha Khadim. suñu caméraman yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ay di leen bëggee. suñu caméraman yi kenn du ñoom ci réew mi. ay waaw ñu ngi lay ñoom ñaar ba léegi ñu ngi ci ndam ñaari mbër yi Laurent pied droit la jiital. Laurent ak Boy Plateau. Boy Plateau jiital pied gauche. na droit. tokkas na léegi. dafa mel ni Laurent day a dem. day bëgg a dem. dafa mel ni day la dem. lan la fa war a fekk. Laurent ak Boy Plateau. Laurent tokkas na léegi waaye dalul. Laurent. Laurent Boy Plateau daw na daw na dóor ay gos attention sànni na ay bërki dal waaye dalul attention dafa mel ni day bëgg a mëb loo ilaaha illallaah Ali Baba Samba Kumanar doom bu gaynde su ko jàppee da koy gaañ cin way ña koy xeex Laurent Liss Ndiago combat bi non bu dañu koy bàyyi bu dañu koy bàyyi Malick waxoon ko waxoon nga ko ko mag du fecc yàlla naa dee looy looy lolo ooy mbay ooy mbay sànni war na léegi ra sànni war na léegi attention sànni war na léegi attention xoolal mi ngi sànni door na dem na attention na ani yer na léegi dooran na léegi ma ngay sànni ay hyperkit hyperkit yi xoolal hyperkit yi ay hyperkit attention ma ngay ay hyperkit da koy jël jeexal combat bi day gaaw wala day yéex ñu xool ñu xool Laurent Boy Plateau looy loo xëy lolo Ali Baba Samba Kumana doomu gaynde su ko jàppee da koy gaañ dafa mel ni daa bëgg a jeexal combat bi ma ngay dem buntu la bëgg buntu la bëgg door na at dooran na léegi daw na jël ko jàppante nañu jàppante nañu ñoom ñaar Laurent Boy Plateau jàppante nañu daan na ko jël bare na jël bare na looy loo xëy lolo looy loo jël bare na jël bare na Malick jël ba rëy na laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah jël ba rëy na mais la mais la wax ci jël bi Laurent daan naa ko jël ba rëy na jël bu amul benn werante jël bu amul benn werante jël bu amul benn werante Laurent daan na Boy Ndiago jël bu rëy xam nga lu ma jaaxal ci combat bi waaw waaw doole la dafa mën a bëre dafa mën a bëre dafa mën a bëre ndànk-ndànk mooy jàpp golo sa ñaañ maa la ko wax jël bee rëy ma ngay jooy nee du génn terrain nee du génn xool ko du génn ma ngay jooy nee na du génn defet bee metti defet bee metti gisoo xool ko nu muy def booy plateau nee na du génn xool ko ndeysaan looy looy lolo looy looy lolo ña ngay bàkku ña ngay bàkku waaw waaw looy looy lolo looy looy lolo Laurent ma nga noonu Laurent ma nga

toog ak moom di raison boobu naa ma defoo dara barki allah gi na la yàlla la fay man la 500 Christophe la ñaamili wala déggoo ma xam ma jaar